Euh, tey sunu benn activité bi nga xam ne dafa sunu plan d'action mooy dem rencontre les autorités locales et sanitaires donc ñu demoon au niveau de la mairie rencontre monsieur le maire Momar Talla Gadiaga maire Malika pour maanaam présenter ko projet bi wax ko sunuy attente par rapport à moom ak li nga xamante ni par exemple mooy appui bi nga xamante ni mairie bi mën na ko defal projet bi so au niveau de Malika aussi mënuloo def lenn maanaam. Euh, sans la mairie La première activité que Covid bi donc mairie des maison de la femme de la mairie par exemple au niveau de la mairie rencontrer monsieur le maire son adjointe et les conseillères chargés du projet bi au niveau de la mairie. accueillir euh, ndax euh, maison de la femme su ñu ñëwee fii tey euh, di rencontrer la commune pour waxtaan ak ñoom ci sensibiliser ci lu jëm ci mbas mi wax dëgg yàlla du ñu mën a def lu dul mbég ci ndax acteurs yi ci Malika yëpp su ñëpp meloon ni ñoom foog naa ne dinañ am mbégte lool ci Covid bi lu ndax bii paase bi yëf yi dooree seeni propre moyen lañ jël ñëw luy saabu luy masque luy gel lu seen doole attan rek jënd nañ ko indi ko ci commune bi jàppalee ko nit ñi loolu nag ki ko defal boppam tey bu wóolee ba gis partenaire boo xam ne mën na koo jàppale ci projet bu mu mën a continuer liggéey boobu ñun vraiment dañu leen di encourager di leen kontaan te xam ne su ñëpp meloon ni ñoom kon foog naa ne mbir mi du yaatu. projet bi li ko tax a jóg rek mooy fexe ba sensibiliser nit ñi ci pandémie bi. ndax ku nekk xam nga ne fi mu nekk nii bu ñëwoon benn dafa sotti ko ak fukk te loolu nag nit ñi rek ñoo ko fi mën a jële te li ko fi mën a jële rek mooy ñu riposté ku nekk def ko sa yëfu bopp ku nekk sensibiliser sa waa kër sensibiliser ñi xamul ba ñu xam ne lii lu am la nit ñaa ngi ciy faatu nit ñi sonn nañ ñenn ñaa ngi hôpital te xam nañ ne nit ki mën nga ko am te doo xam foo ko jële surtout cas communautaire yooyu ñu bëgg sensibiliser nit ñi ba ñu moytu moytu xew yi moytu ndaje yi jël mesure de barrière yi ñu ànd ci nag ak ceci ñoom ñoo ñu jàppale financé ñu ndax bëgg nag ñu lëkkaloo ak mairie bi lëkkaloo ak dëkk bi kenn mënul wax maison de la femme te waxoo mairie bi kenn mënul wax dëkk bi te waxoo mairie bi ndax monsieur le maire mooy jaraafu dëkk bi te lu am ci dëkk bi ci tamit ci moom lay jëkk ñëw kon mënuñoo def dara te ñëw ñu jaar ci moom ndax mooy bunt bi dinañ ci lëkkaloo tamit ak poste de santé yi nekk ci Malika commission santé ak ñëpp dinañ ci lëkkaloo ak ñoom incha allah fas yéeneen lëkkaloo imaam yeeg délégué de quartier yeeg bàjjenu gox yeeg relais communautaire yi ak képp koo xam ne rek sa baat bu jógee dinañ la tëpp ñu waxtaan ci fexe ba sensibiliser nit ñi ndax mbir mi mbiru ñëpp la kon na ci ñëpp taxaw na taxaw ku nekk nekkal sa relais bopp jiite jëkki sa kër teg ci bala nga cee teg mbedd mi bu ko defee rek yàlla mën nañ ci muccal ci kàttan yàlla. di jaajëfal waa maison de la femme ci initiative bi ñu am ak xel bi ñu am pour demander à ce que euh, des jeunes ñëw jàppale ñu ci xeex bi ñuy xeex euh, corona bi parce que fekk si nañ ñu ci depuis. Euh, première cas bi ñu enregistré au Sénégal jusqu'à présent voilà ñu ngi ci di ci xeex mosuñoo bàyyi benn yoon te yàlla def na deuxième vague bi ñëw en masse ñoom ñu am xel dem trouver des partenaires ñëw jàpp ñu dañ koy accepter à bras ouverts leen wax ne dañu lay accompagner ci tous les sens ci tous les côtés nañ leen ci jàppale ànd ak ñoom mel ni mbir mi suñu mbiru bopp la parce que bu ñu ko indee Malika lañ ko indil mairie bi lañ ko indil donc aussi mairie aussi lu mu ci ay moyens ci euh, ressources humaines ci le aussi de ko def tout simplement pour accompagner population Malika tout simplement pour xex eh, li nga xamal sont mbass mi nga xam mom mo wàcc fi baña sonal askan Malika. donc buñ fa aussi dañu dem cet euh, monsieur Saliou Thiam muy infirmier chef de poste bi nek euh, poste santé bu Malika. mom aussi moy suñu partenaire stratégique par rapport à activité ñi def. donc euh, ñu def dara aussi comme problème mu santé la sans ICP bi nga xamante moom moo nekk dans la dans sa dans la zone d' intervention muy le docteur Thiam muy Saliou Thiam donc infirmier chef de poste poste santé Malika donc euh, présente ko projet bi explique ko suñu attente par rapport ak moom moom aussi vraiment il nous a très bien accueilli engagé wu na aussi par rapport ak li nga xamante mooy suñuy attente par rapport ak moom mal ñu vraiment nous sommes toujours ensemble et nous, depuis très longtemps on a travaillé ensemble avec Maison de la Femme donc moi aussi il est partant et il compte nous accompagner. parce que ñëpp xam na ni contexte bi nekk période bi il y a des difficultés par rapport à ak vraiment euh, comment dire, le quotidien de la population di ko waral mooy taw bi la nekk te ñu deuxième vague bi ñëpp ñu gis ni kaa euh, yaa gën a donc population bi comme première vague je pense que ni même su dee aussi a fait des leçons euh, aussi à bras de corps bala muy bala a première vague parce que dañ doon maison de la femme nous sax fait des partenaires et des acteurs donc si nous avons ko loxo ñu ci ci remercier le partenaire